all from the weather there, a eh, look once again at our top stories. The Health and Social Welfare Minister has laid the foundation stone of five health center wards funded by Munazamat Al-Dawa al islamiya to the tune of, uh, of over half a million dollars. Fisheries and Water Resources Minister Mas Axigai has outlined the economic benefits of aquaculture. Mexico has made another breakthrough in its seemingly unrelenting war on drugs with the arrest of the leader of the feared Zetas cartel, and the European Union has moved to starve Israeli research bodies and non-governmental organizations operating in occupied territories of grants, prices, and other funding from the union's budget. Well, that's all in this edition of the news. Thanks for your time and stay tuned to GRCS and enjoy our programs. From me and the entire news team, do enjoy our programs. Bye-bye. Assalamu alaikum to all our wonderful viewers out there and all our darling AfriCell subscribers. Your number one GSM operator, AfriCell, is wishing everyone a very blessed holy month of Ramadan. May Allah answer all our prayers and accept our fasting and also continue to shower this nation with blessings and more prosperity and to every single individual living in this country as well. And as you know, every year, AfriCell always brings you something very special during the month of Ramadan that is why this year we're coming out with something super special as well. And if you want to find out what it is, just join us right here at the AfriCell head office on Friday, the 19th of July 2013, right after Juma prayers, right here at the AfriCell head office on Kairoba Avenue. AfriCell has something very special for each and every one of you. I will see you there. assalamu aleykum mbaɗi mandinkola anin mbaɗi juuɓelal men ɓe juuɓe kañum waken kono mbal tentola mbal jayla baka baka bake mbal konton nafana mbal ziyarere ñin sunkaro kono ɗum tamen kono ka falli ɓeye ko alminna sugol jaabila alminna salol mutala fanan ko ala sin ñajamañi sunkar jama jama jamalla ah, ka faali ko kalyalo ñaame sango san sunkar wato afisir ko kuɓalle ke e eh, ñin sandenten tan mbalal fana ga kuwol kele me ga sukuru botol dile ga manol tabile ga kinu ga kuujamalle di ya lon ko hani kabi molu ke miranoma de ake sewande bakel wala na ñinan fana comme kule kuule kele mai ye lon ko nenemajo lo mool nenemaje ñin banku kan wala na officiel ɓe kela mo foloti pour ka kaale bari ka faale na laftalo na soniyata ba kele al na na head office do jam belorin damen na teng a arjumo ñin na la teg ñin karo til tan nin kononto kan ba kule ɓe kela jam mai ye lon ko mool nenemaje en tol faŋol nenemaje en tol faŋol malum memmo bari officiel le ba folola jang ala barak Assalamualaikum suñu mbokki setan kat ya kep ko xamne mu ngi jëfandikoo Africell line bi rek Africell la fi del ci waat di len ñaanal wéri koor bu sel di ñaan yàlla pour mu nangu suñ koor yi nangu suñuy ñaan tek ci tamit kep ko xamne mu ngi dekk fi ci dekk bi ak kep ko xamne ngay ñaanal dekk bi jaama yalla la yalla yokal jaama yalla la yalla yokal natange ak yokute ajuma bi di ñew muy July 19 su juma passé rek excellent fi ci suñ maakaan bu mag bi nekk ak Kairaba Avenue muy Africell head office bi rek Africell la leen amal lu reey reey reey kon bu leen fàtte ajuma bi muy 19th of July fii nii si maakaan bu mag bi su juma passé rek ngi tosee fii ab selang leen amal lu rëy man dinaa fi nekka te maa leen a séntu asalaamaaleykum bokkay ñoo seetaan ñu ngi leen di nuyu di leen ziare ci suñ programme bi nga xam ne moo di koor gi ak kër gi muy ci biir programme bi nga xam ne nag nañ ciy waxtaanee yenn jafe-jafe yi nga xam ne seetlu nañ ne mu ñoo dal ci suñ biir kër yi ci jamonoy weeru koor wi eh, dina ñuy def ay waxtaan yoo xam ne nañ ciy seet xalaati nit ñi ko defee ñu indi ko ci programme bi dinañuy amit théâtre bu gàtt boo xam ne dafa dëppoo ak li nga xam ne moom la ñoo waxtaanee ñu indi leen ko yëpp ci biir koor gi ak kër gi bu ko defee nag ñu dal di fi indi ay nit ñoo xam ne ñoom itamit eh, dinañ mun a waxtaane ñun eh, ci wàlli diina gi ak ci wàlli ñi nga xam ne ñoom ñu ngi taxaw mbiri kër gi loolu moo tax nag tey ñu amal leen fi ki nga xam ne moo di imaam Cheikh Tidiane Thiam eh, nekk imaam ci Banjulinding Med Camp mosque bi Eh, am fii aji ndey faal kinte moom nag du fi gan léeg di ngeen koy faral jamono bu ci nekk di ko gis ci suñ programme yi ñu ni neen la muy koo xam ne moom it eh, kilifa la way jur la eh, ñu ne ñu indi leen dajale leen nag suñ programme bi waaye nag balaa ñu indi waxtaan yooyu rek ñu ànd ak roxi biti Ah, benn tey rek mbokk yi dañ ne koor gi ak kër gi suñ ne koor gi ak kër gi duñ mun a dem nag te seet si ñi nga xam ne ñoo amee kër gi mooy jigéen ñi ak seen wàllu togg ci ndogu yi nga xam ne moom lañ faral di def ci weeru koor wi moo tax nag lu ñu def rek mooy seet si ñi nga xam ne ñoo nekk si seen biir wàññi ñu seede lu ñu amal tey ci wàllu ndogu lekk ñam yi nga xam ne moom lañ fas yéene togg ci bés bi toppaleen ma xool ñu seet lañ fiy jëlee. yaa booy tur bi. man May Diouf laa tudd Euh, meññu la fekk si sa biir waañ dafa mel ni fi mu nekk nii yaa ngi doo a jógee marché ñëw di ebbi sa nduga. waaw waaw maa ngi doog a jógee marché nii léegi laa jógee marché waaw. loo fas yéene tey togg ci ndaw li. Ah, maa ngi fas yéene pour tooga soosi marina ma tooga benn ci benn ci ni yàppa bu weex ma jënd soosij pour toogal ko ah, xida waaw loolu yëpp nga fas yéene def tey ci bés bi waaw ci des bi tey loolu laa fas yéene pour def mm-hmm. ndax li ngay togga nii yëpp maanaam ñetti togga yi nga lim yoone yëpp di ngeen ko mën a lekk ci benn bis bi tey waaw dañ ko dee mën a lekk hmm. <laughs> waaw suñu euh, dogoo ba pare hmm. ñu dem naafila suñ naafila ba pare ñu lekka benn bu ci des lu ci des ñu xidee ko hmm. waaw dañ ko dee jeexal dama dee toggale em rek nga xam ne mun nañ koo jeexal duñ tuur lekka dañ tuur lekka noo gisee comme ñi nga xam ne dañ ñaare dañ dee tooga lekk yu bari yi daal di jël su pare ñu tuur ko si ñami mbaam yi wala sax ñu jël lekk bi sànni ko noonu muy yàq bu xam ne yàq bu am bu am amul àppala loolu baaxut sooy tooga toogalu em li nga xam ne mu jeexal waaye nga toogalu bari dem ñu koo ci ñami mbaam loolu baaxut loolu baaxut bu desee sax mun nga koo jël nga jox ko ñi nga xam ne ñooñu ñu ko afoot waaye jël lekk nga lekk ko bi tooga ba bari jël di ko def ñami mbaam loolu warut loolu baaxut loolu moo baaxut dara. mbokk yi dégg nañ li nga xam ne noonu la moom la Yaame Diouf wax muy lu am solo muy nag muy waajal fi mu nekk nii toggandogu ni ñuy def rek mooy dugg feneen seeti leen beneen kër ñoom.